ma woyal leen lu neex nag ma woyal leen lu neex loo xam ne moom mosuma koo def loolu daal laa bëgg. ci Pape da nga yàgg def événement biir Paris sa fans yi dernière minute di jooy amuñu billet ban appel nga leen di lancer parce que actuellement billet yi ñu ngi ci bëtti. ah xanaa rek ñu dem jëndi billet ndax nag doolee woykat public bi la doolee jëpp ndox la dem leen jëndi yi ndax sa waay bés bi moom moo ko de bés bi yéen ko moom te bu jeexee rek jeex.

comme on vous le dit c'est l'arrivée de Pape Diouf ici à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris préparation Bercy rendez-vous du 13 octobre ici à Paris Pape Diouf nous na fait une surprise pour Magam Maglani mag surprise la nous, comme nous l'avons dit, le 13 octobre Inch'Allah, du yomb affaire là c'est la fête de la musique sénégalaise plus particulièrement la fête de la musique africaine C'est qui Paris voilà Comme ko Pape Diouf aéroport comme je vous l'ai promis le rendez-vous du 13 octobre sera une date mixte dans une salle mythique avec un artiste hors pair Pape Diouf leader de la génération consciente les billets sont déjà disponibles dem vous ngeen des billets. billet Lamp Fall wax Café Touba restaurant Lamine restaurant Point des Almadies Kisma restaurant Xelkom Taco Afro boulevard Château d'Eau restaurant May bié yaa ngi fa dem leen ngeen jëndi seen Pape Diouf egsi pour belle surprise bu mag bi ngeen di découvrir le soir du 13 octobre ci kaw seen bi ndaanaan nag la wax fadrin di artiste Bo xamante ni ngi rêvé pour Togo ak Pape Diouf looloo ko fa indi restaurant le Dibi zal comee ngi nii mu ngi ay salon Pape Samba Sénégal beauté yep bié yaa ngi fa kon waa Paris waa Afrique waa Europe nañu d'ailleurs c'est la fête de la musique africaine, plus particulièrement la musique sénégalaise représentée par le digne fils Pape Diouf, leader de la génération consciente. spectacle spectacle Pape lu jigéen bokkul neexut pour moi. jeex na ma wax loolu. <laughs> jeex na mais booy temps yi xees ngeen di yéen. ah mais c'est normal <laughs> <laughs> booy temps yi da ngeen a leeral. booy leer ngeen temps yi de leer nañu. Ah. ok booy. oui allo. Zal Zal Zal. bu jeexee rek jeex na. maa la ko wax